waaw gis nga de sama chéri fi mu ne nii yëpp dañu xool joxe seen. waaw joxe yor yi euh, mooy sant yàlla tàmbalee ci sant yàlla julli ci yonent bi tedd bi euh, ñëw dooleel suñu mbokk jigéen ñi suñuy yaay suñuy mag suñuy rak suñuy doom ñëw won leen ne ñoom itamit ci ñun lañu bokk ba tey ci société bi lañu bokk xam nga jigéen kenn amul fayam ci jamono bi ñu toll ndax jigéen mooy àdduna macha allah. donc 8 mars bi bu ñu woote ci sargal jigéen fu jigéen mën a fekk day yoon ñu jépp dem fekk ji la sargal la looloo ñu indi tey pour ñu won leen ne ñu nag ñoom benn souvent ñu ñëw bi a bett bi beddu leen sax waaye xam nga dañ toll jamono boo xam ne jot amul ñoom buñ leen ñëwee seet ñun suñuy xol buñ leen seetu li tam ñun ci suñuy xol te gis nga li ci xol yi moo ëpp solo ndax euh, ñun ñoo dul ñëw amaan na mais kenn bàyyiwu leen yi tamit.

loolu moo war a jeex takk jigéen bu kenn amul fayam jigéen a ëpp jamono jigéen a ëpp or jigéen a ëpp alal adduna bi bu doxee tey jigéen a tax mu dox ndax jigéen a jur yëpp donc dañoo war a jël teg ñu suñu place dóor saaga xas viol torture stop dafa doy rey dafa doy loolu moom vraiment dafa doy euh, guerre guerre dafa am ñoo jigéen

nattu yalla te gis nga nattu bu ñëwé boko bañé dalay dakk ci dàq nattu bu ñëwé dang koy nangu te xol stratégie boko ko xeexee mu dagg li ñuy ñaan nak moy suñu njitu réew ñu dimbali leen ñu am pexé bo xamé ni dañ ko ñibbisee comme tukki won nañu yalla bañ nañu waat seen dëkk pexé du jeex dinañu amaat leneen inshallah allah li ñu gëm moy jom ful la fayda liggéey bu ñu ñëwee fii nañ doxee noonu rek yàlla day sottal lépp. maman euh, ñu gis euh, réew mi euh, ni mu pëcc jëm ci li ngeen xam wala en tant que ne yaa ko ci am jëm ci ki nga xam ne moo ah loolu nag du ma ci débat parce que man politique ma gis nga suñu Sénégal bi ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi.

xam nga Adji Sarr su ma taxawee fii pour plaider jigéen ñi du ma dammat Adji Sarr ndax jigéen la su ma ko defee su ma ko waxee leneen je serai très fausse très fausse et très gauche du ma def loolu Adji Sarr jigéen la comme ñun lenn rek lay ñaan. chers internautes alors ñu ngi leen di ziyaaraat bu baax ba tey ñu ngi fii nga xamante ni ah, mooy camp pénal ah, tey ci journée de la femme bi muy 8 mars ah, ni ñu leen ko waxee artistes yi bëri nañ fii. Euh, Médina donc ñu ngi koy ziar d'abord. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa univers en info ak waa Feeling Dakar waa Sénégal média di leen bëggee ah. euh, tey nag lu doon sama teewaay mooy ma am samay sœur am samay rakk am samay yaay yu fi nekk waaw di jombul kenn moo tax tey ba ma duggee sama xol dafa tooy sama xol tooy na trop parce que maa ngi si yàlla la maa ngi ñaan yàlla yàlla na leen fi yàlla génne ah, ah. di ko di ko maanaam sama xol dama tooy quoi parce que li ma gis fii macha allah dama gis sama yaram daa daw yal na yàlla fi génn. amiin ñu gis euh, sa mbokk artistes yi nga xamante ne ñoom euh, duñu chanteuse waaye ay comédienne lañ. Euh, dajale ay waa actrices yi dajale xaalis def enveloppe bu duun ak yeneen affaire yoo xam ne jënd nañ ko objet indil leen ko. ñu gis aussi yeneen artistes yoo xamante ne waykat lañ ñoom it li ñu yor dañ koy def est-ce que El Hadj mës na ko def wala dinañ ko xaar incha allah. bien sûr bien man chaque at dama fi ñëw boo am na boo xam ne man ak baxaw boo xam ne man ak Demba Guissé waaw ñun dañ fay miin nañ ko miin nañ ko mais maanaam saa yoo ñëwee rek sa yaram day gën a daw parce que ba da ngay naan lii maanaam maanaam lu garaaw la daal sa yaram day daw nga xam ni actrice tamit ak acteurs yi nga xam ne ñooy ñooy jouer yi macha allah yal na leen yàlla fay parce que def nañ lu loo loo xam ni ñu bari ñemewuñu ko ñu bari amuñu fit def ko ba pare li gën li ma gën a neex ñoom ñooy servir ñoom servir ñëpp jox lépp lu lekk. maa ngi leen maa maa ngi rafetlu acte boobu macha allah di leen ñaanal yàlla sàmm leen ñoom ñëpp ñuy jéekatu théâtre yi fi nekk yëpp acteurs yeeg jéekatu série yëpp maa ngi leen di bëggee kontaan naa trop sama xol sedd na yal na leen yàlla fay. waaw merci beaucoup. boo rajo wala moo euh, di almadi non mais man damay waajal sama album ba pare je suis je suis avec Mbacké Dioum te ku xam Mbac Mbacké xam ne Mbacké dafa discret bëggul may def bëggul may def waaw bëggul may def bruit waaw jóge naa jiri ngoone maa ngi ci Mbacké Dioum waaw noonu la demee moo tax nag xam rek ma def stand by euh, reculer pour mieux sauter ba pare nekk sama album nekk sama bopp moo tax xam rek man ku xam El Hadj Keita sax xam ne El Hadj Keita doxul ci bruit man du ma bruit non non man man carrière bu sain laa bëgg waaw man je fais pas de bruit man j'aime pas les bruits. waaw musique gaa yi ngi góorgóorlu gaa yi ngi liggéey gaa yi ngi doxal comme ni nga ko waxee gaa yi ngi doxal ay Momo Dieng moom suma xarit la suma nawle la je l'aime ay Ibro gaa yi ngi jóob te te am na ah, toll nañ fi benn moment boo xam ne tamit. El Hadj Keita daan na yëngal boîte kon tey bu demee nii rek dañuy sant yàlla affaire yi doo forcer quoi doo forcer déedéet waaw. waaw waaw yàlla def na loolu yàlla def na loolu. ok vas waaw sant yàlla gis nga man boo moom laa la doon wax léegi doxuma ci doxuma ci concurrence doxuma ci ay defante doxuma ci ay jokkalante ñëpp laa amal jàmm ñëpp samay xarit lañ non non man man dund ma ko bopp waaw man dund ma ko bu ko ñeneen dundee man lijjanti ma loolu je fais ma carrière yàlla mi may suturaal mi ngi may jàppale ñi ma bëgg ñi ngi may bëgg ba léegi ñi may jàppale ñi may jàppale ba léegi sant yàlla waaw waaw waaw ñu góorgóorle fonk sunu yaay fonk soxna yi parce jigéen lu mu bokkul baaxul te jigéen boo ko sargalee boo ko téye ni nga ko war a téye suñu borom jàppale la jigéen mooy lépp avenir góor mi ngi ci loxoy jigéen waaw barki Seydina Mohamed avenir góor mi ngi ci loxoy jigéen boo toroxalee jigéen torox boo teralee jigéen tedd waaw Aïcha waaw lenn laa la bëgg laaj El Hadj tey est-ce que 8 mars bi jo offrir no cadeau bu maga a mag jabar man chaque jour 8 mars la mag sama jabar man nga ko offrir tay mais tay ban cadeau nga ko offrir non duma la ko wax cadeau dang ñukoy wax duma la ko wax ding ko wax cadeau bir neeg la cadeau cadeau ah deba ela <laughs> alors nga gis euh, jamono bi ñu tollu jigen ñi euh, góor ñi sax lay wax pour ñu am jigéen ñi foog ñu fen leen ñu baal ma ci wax bi mhm. euh, na leen loo xamante ne nii euh, lu ñu amul la jigéen ñi si jigéen ñi la wala ci góor ñi la euh, effectivement maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu mbokk internet yi ñuy seetaan di kontaan encore une fois ñëw fii ci camp di ñëw pour jour bi nga xamante ne mooy 8 mars bi ñu sargal jigéen ñi euh, moom dafa xaw a complexe quoi euh, doona mënoo ne jigéen ñi la mënoo ne góor ñi la quoi vice versa la quoi des ñi tamit ñooy def loo xamante ni góor ñi dañ naan foog ma fen leen pour mën a am nangam ak nangam des fois tamit góor ñi faute bi si ñoom la ko bëgg am dara day tax ñu. léegi bu tey bu nekkee euh, faute bi ci jigéen ñi la lan nga leen di conseiller. mais ñu bàyyi li ñuy def ñu bàyyi li ñuy def te ñuy wax dëgg dañu dañu dañu simple quoi adduna amul solo gis nga loolu la boo gisee tamit xaalis moo koy waral xaalis mooy waral doomu aadama bi di def yenn yi et que da nga war a xam ni nit mayul boppam nit su doon may boppam mooy ëppale ci kaw suuf mais nit mayul boppam donc nit su pësee foofu ba am dara si si àddina du coobareem ay dogalu suñu borom la wërsëgam moo ni toll ah waaye maay ma ma tegal sama interview yéen a ngi dégg am am dépendre wul si euh, ci ci coono bu métti wala nanga ma ay dogal la kon donc ñu bëri nag alal moo tax ñuy def yenn yi quoi wala wala bànneexu sa bànneexu bopp bu dee góor ñi seen bànneexu bopp mooy tax ñu def ko bu dee jigéen ñi des alal mooy tax ñu def ko quoi waaw waay mon amour waaw <laughs> la. waaw dama leen di yërëm ba dama leen di dama leen di wax ni loolu lu mun a nekk la quoi dañuy delluwaat rek ci ci ci lislaam xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, soxnaam Khadija moo ko magoon 15 ans te loolu lu mën a nekk la quoi ñun ñoo bàyyi suñu diine suñu jàppee suñu diine duñu am problème quoi mais tamit société day am lu muy refléter ci suñu dund quoi ndax société bi mooy tax ñu ne la sa yaay tey benn xale moo ko takk wala nangam ak nangam genre yooyu noonu la quoi mais du dara. gars war nañ mën a ah, maa ngi lay dégg sànq say biir wax su ma ci waxtoo tuuti rek. waaw génn gis benn xale waaw dem di nga xam ne mooy ma si kàddu yi. Mhm. naan ko am naa lii wala jox naa la limousine bi. Mhm. te lii fekk na lu yëpp ci dëgg ba jabar ji dóor ko est-ce fen baaxul. yonent bi dañ ko laaj ne ko ah, ndax jullit dina nangam mu ne waaw jullit dina nangam jullit dina sàcc jullit dina def li ba mu ne mhm. bañ yeggee si ndax jullit dina fen dèjà rek fen baaxul fen mun naa tukkil àddina fen mun naa toj réew mun naa def lu ne fen sax moo tax suñu dëkk bi tey mu jaxasoo jaxasoo lu mel nii ndax si ay fen am na yu bëri yu bëri yoo xamante ne ci ay fen la lalu donc nit ñi ñoo war a bàyyi fen fen baaxul foofu laa si yem waaw <laughs> merci beaucoup bonne fête